salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. nee bala ñuy wax benn baat. nee na bala ñuy wax benn baat. dañuy santaat yàlla. dañuy santaat yàlla. sant yonent bi. sant yonent bi. sant sëriñ Touba. sant Serigne Touba. sant waajur yi. sant waajur yi. waaye nag sant Cheikh Mouhamadul Mountakha. nag sant Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha. Eh, ni yàlla moom. ci nii nga xam ne noonu la yàlla doxalee ak moom. digganteem ak murid ci digganteem ak murid ak sunu diggante ak moom. ak sunu diggante ak moom. bi may ñëw. nee na bi muy ñëw. ah ñëwoon rek ci kër goo xam ne. nee na dafa ñëwoon rek ci kër goo xam ne. yàgg naa fee ñëw. yàgg na fee ñëw. màggal am na fi. màggal am na fi. sëriñ Cheikh mii nekku fi. sëriñ Cheikh mii nekku fi. ma nekkal ko. sëriñ Moustapha mii nekkal ko. ba yeewi mbooloo mi. ba yeewi mbooloo mi. loolu sa kanam la. loolu lépp sunu kanam la. booba it sëñ Modou ngi fi. booba it sëriñ Modou mi ngi fi. waaye këram laa ne woon boobu. waaye booba kër sëñ Cheikh la nekk. sëñ Modou di sunu kilifa. nee na sëriñ Modou di kilifaam. E, te ni ko waxee léegi du ci dolli dara. te nee na liñ doon wax léegi du ci dolli waat dara. waaye bi ma ñëwee nag. waaye bi mu ñëwee nag. dama fee fekk ndaw yi sëñ Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha. dafay fekk ndaw yi Serigne Touba Cheikh Mouhamadul Mountakha. di Cheikh Ahmad Badawi mi nga xam ne. di Serigne Cheikh Ahmad Badawi mi nga xam ne. du neex a wax ci moom. du neex a wax ci moom. waaye kóolu teefug sëñ Mountakha ci moom. waaye nag kóolu teefug Serigne Mountakha ci moom. E, dana mën a ab junj la ci taalibe yi. ab junj daal lay doon ci taalibe yi. ab junj la ci xam-xam. ab junj la ci xam-xam. ci bokk. ab junj la ci bokk. ab junj la ci ko amub yar am i teggin. ab junj la ci ko am ab yar am ay teggin. mu ànd ak maam Thierno mi nga xam ne. mu ànd ak maam Thierno mi nga xam ne. moom ci njabootuk sëriñ bi la. moom ci njabootuk sëriñ bi la. waaye ñun ñi nga xam ne jege nañu sëriñ Mountakha. waaye eh, ñun ñi nga xam ne jege nañ sëriñ Mountakha. li ñu gis ci moom. li ñu gis ci moom. ci ci Pastef. moom lañu gis fee rek. moom lañu gis fee rek. ci yaram. ci yaram. ci tegginam. ci tegginam. xëccuwul dara. xëccuwul dara. lu dul ndigalal sëriñ bi. lu dul ndigalul sëriñ bi. kon bu ñu ñëwee fekk fi ñooñu. kon bu ñu ñëwee fekk la jaadu woon. la jaadu woon. mooy ma toog nii rek. mooy ma toog nii rek. Eh, sëriñ bi ñaanal nu. sëriñ bi ñaanal nu. ndax ku jàpp ne rek eh, du sëñ Muntaxa moo toog fii tey. te ku jàpp ne jataay bii du jataayu sëñ Muntaxa moo fi toog. Eh, xamoo lu bari. xamoo lu bari. kon Cheikh Ahmad Badawi kon ñu ngi la jàppee Serigne Touba ci jataay bi. kon Cheikh Ahmad Badawi ñu ngi lay jàppee Serigne Touba ci jataay bi. ndax ndaw lu ne. ndax ndaw lu ne. darajal ka ko yónni la yor. darajay ka ko yónni rek la yor. kon bu sëñ bi ñëwoon léegi. kon bu sëñ bi ñëwoon léegi. Ah, daanaka bu ñu mënee raam ca pënd ba sax ca la ñuy raam. daanaka bu ñu mënee raam ca pënd ba sax ca la raam. kon nu mu demee. kon nu mu demee. bu nu toogee ak yow it. bu nu toogee ak yow it. jàppal ne darajey sëñ Muntaxa bàyyi nañu ko xel. jàppal na daal jàpp bàyyi nañ xel lool darajey sëñ muntaxaa ji nga yore. te moo la yónni it nag. te moo la yónni it nag. Eh, te te lu mu waxoon ci yow nga wax nu ko. tey lu mu waxoon ci yow it nga wax nu ko. lu mu mën a doon. lu mu mën a doon. ku ko defut. bu ko defut. ku ko defut. ku ko defut. génn nga. génn nga moom. ku ko def. ku ko def. yaa ngi ci biir. yaa ngi ci biir dëgg la. kon nag maa ngi lay jox daraja jooju. kon nee ne mi ngi lay jox daraja jooju. Eh, di wan rek ngeen ñëw moom xas naa ko tudd muy sëñ Cheikh Anta nee nag di leen wax ne kii ngeen ñëw moom xas naa ko tudd ba noppi muy sëriñ Cheikh Anta. Male Male. ndax bu fi sëriñ bi daan ñëw. ndax bu fi sëriñ bi daan ñëw. fu ma mën a ne. fu ma mën a ne. dana ma woo. dana ma woo. ma ànd ak moom. ma ànd ak moom. ñëw fii ci moom. ñëw fii ci moom. ànd ak moom. ànd ak moom. dem ci ki fi toogal maam Cheikh dem fa ci ki ci toogal maam Cheikh ci jamono yëpp nag. ci jamono yëpp nag yi weesu yëpp. nga xam ne booba sëñ Touba mooy yónni Cheikh Mamadou Mountakha. nga xam ne booba sëñ Touba ma fa nekkoon moo daan yónni sëriñ Mountakha. muy ñëw muy ñëw. ba mu doon sëñ Touba. ba mu xëy nag doon sëñ Touba mi daan yónnee moom muy yónnee. te booba ci waajtaay la ne. te booba ci waajtaay la ne. kon nag kon nag. moom moom mi nga xam ne amoon na cër boobu la. moom Serigne seexante mi nga xam ne amoon na cër boobu la. damay defee ne cër bii it. damay defee ne cër bii it. moom moom la moom la ñuy doxalaat ba naga moom la ñuy doxal rek ba naga ni. bi ma agsee nag. bi ma agsee nag. ah pexe amul. pexe amul. Cheikh Ahmad Badawi ne. Cheikh Ahmad Badawi ne. ak maam Thierno. ak maam Thierno. ne euh, sëñ Muntaxa bi yabal nañu naam. ne sëriñ Muntaxa de yabal nañu naam. waaye ginnaaw ñëw nga nag. waaye ginnaaw ñëw nga nag. kaddu gaa ngoog. kaddu gaa ngoog. noo waxe rek. noo waxee rek. noona la. noona la. dégloo. dégloo. kon nag. kon nag. maa ngi dellu di nuyu uh, maam Cheikh Anta. nee mi ngi delluwaat di nuyuwaat maam Cheikh di nuy njabootu sëñ Modou Mamoun ak njabootu sëñ Gaawaan gi fi ne yëpp. di nuyu njabootu sëñ Modou Mamoun ak njabootu maam seexanta Anta gi fi nekk yëpp. ak njabootu sëñ Modou Roqe. ak njabootu sëñ Modou Roqe. muy njabootu biir. muy njabootu biir. ak gu biti. ak gu biti. wala dul xal bi ak wala dul sul bi yëpp. mu ne daal wala dul xal bi ak wala dul bi yëpp mi ngi leen di nuyu. te wala dul xal bi ëpp ci doole. te wala dul xal bi nag ëpp ci doole. ak kuy waladu sulbi te amoo te sa xol joxe ko bokkoo. ndax kuy waladu bi te joxe sa xol bokkoo. kon doomi xol yi mooy mbir mi. kon daal doomi xol yi ñooy mbir mi. maa ngi yëkkati kàddu goo xam ne gu jafe lay doon nag. maa ngi yëkkati nag kàddu goo xam ne gu jafe lay doon. ci turu Cheikh Mahamadul Muntaxa. ci turu Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa. ñi mu tànn nii. ak ñi mu tànn nii nag te ma tuddoon leen. te yabal leen fii. te yabal leen fii. lu ma ci wax nag. lu ma ci wax nag. bu fekkee ne jub na. su fekkee ne jub na. dama bëggoon mu jub lool. damaa bëggoon mu jub lool. ndax ñii ñii mu yabal. ndax ñii mu yabal. ak moom mi leen yabal. ak moom mi leen yabal. seexu naa sill mi nga xam ne. seexu naa sill mi nga xam ne. Eh, mi ngi ci seen biir. mi ngi ci seen biir. te mu ànd akuk doy lool. te mu ànd akuk doy lool. ci sunu diggante ak sëriñ bi. ci sunu diggante ak sëriñ bi. ndax sànq day na ma ne ma sëriñ bi damaa yónni ci yow. ndax sànq day na ma ne ma sëriñ bi damaa yónni ci yow. xamaguma lu mu. xamaguma lu mu. waaye noo ngi nuyu taalibe yëpp. waaye noo ngi nuyu taalibe yëpp. di ko teg ci loxol sa seen jëwriñ ji. di ko teg nag ci loxol sunu jëwriñ ji. di wane ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha. di wane ne Cheikh Mouhamadoul Mountakha. dara da koo ñorul. dara da koo ñorul. lu dul ak taalibe. lu dul ak taalibe. ndax dégg ngeen ni muy waxe ndax dégg ngeen moom sëriñ Mountakha ni muy waxe ku yàlla dimbalewul sax. ku yàlla dimbalewul sax. boo ko déggee muy wax. boo ko déggee muy wax. man nga caa bañ a jariñu. ndax man nga caa bañ a jariñu. ndax da lay joxaat léppam. ndax da lay joxaat léppam. boo dul ku yeewu. boodul ku yeewu. man ngaa bañ a doylu. man ngaa bañ a doylu. waaye ñàkk gu mu ñàkk ñëw fii. waaye ñàkk gu mu ñàkk a ñëw fii. Ah, dañ ko daañ ko dogal ngant li. daañ ko dogal ngant li. ndax du nit lu mu bëgg rek. ndax du nit lu mu bëgg rek. ñu bàyyee ko ko. ñu bàyyee ko ko. li ma dégg ngay wax ne bu sëñ bi bu ne woon na def lii mu def noona li mu wax léegi ne bu sëñ bi ne woon nañu def nii mu def noona loolu mooy li loolu daal mooy li kon nag moom kon nag moom jataay yii am jataay yii di am dawu ko naam dawu ko de moom naam ndax lii muy takk nii ci gémmiñ yi ndax lii muy takk ci gémmiñ yi takku ko ngir ragal mbas mi takku ko ngir ragal mbas mi da koo takk ngir jàngale da koo takk rek ngir jàngale ba mu dalee wax ne moom. ndax moom kat ba mu dalee wax moom sañ Muntaxa ne. mag naa ñu bari. mag naa ñu bari. booba la wéeru ci yàlla. booba la wéeru ci yàlla. kon mbas mënalu ko dara. kon mbas mu mënalu ko dara. xanaa kay mu yàgg fi ñaan ñu génn ci mbas mi. xanaa kay mu yàgg fi dinu ñaanal ñu génn ci mbas mi. kon nag moom nee na. kon nag moom nee na. mu ngi lay nuyu. mu ngi lay nuyu yow sëriñ Seex. yaa ngi ñu ngi ko seqal ñëpp. yaa ngi ñu ngi ko seqal ñëpp. di la ñaanal. di la ñaanal nag. lam la waxoon keroog. lam la waxoon keroog. ci diggante sëñ Modou Mahmoun. ci diggante sëriñ Modou Mahmoun. Eh, diggante maam Cheikh Anta ak ak Ahmadul Khadim. diggante maam Cheikh Anta ak Cheikh Ahmadul diggante sëñ Modou Mahmoun ak kilifa yi mu jamonoon diggante sëriñ Modou Mahmoun ak kilifaam yam jamonoon diggante sëriñ Modou Rokhaya ak kilifa yam jamonoon teeloon. diggante sëriñ Modou ya ak kilifa yam jamonoon teeloon. waaye mu sitewaat sëñ Modou Rokhaya itam. waaye nag mu seppiwaat ci sëñ Modou Rokhaya nag. seppiwaat la ca yow itam. seppiwaat la ci yow sëriñ Cheikh Anta. loola ñëpp yem ci moom. loola ñëpp a yem ci moom. Darou Salaam gépp. Darou Salaam gépp. ndax xam ngeen ni muy waxee ci Darou ndax xam ngeen kat ni muy waxee ci Darou Salaam. bi muy dugg yaa ngi koy junj. bi ñuy dugg bi muy dugg léegi ñoo ngi koy junj. bàyyi xel Darou Salaam. ku bàyyi xel Darou Salaam la. ci wet yëpp nag. ci wet yëpp nag. na nag. na nag. bi mu nekkee Serigne Touba. bi mu nekkee Serigne Touba. ngeen wan ko ne ko liggéey bi yéen a ngi ci. ñu wan ko ne ko nag liggéey bi moom Darou Salaam da ko fas yéene ànd ak yow. Darou Salaam euh, wax dëgg yàlla nit lañ ñoo xam ne. waa Darou Salaam daal wax dëgg yàlla nit lañ ñoo xam ne. nangu nañu. nangu nañu. nangoo nekki taalibe. nangoo nekk ay taalibe. ca cosaan la ba nëgëni. te ca cosaan la nag ba nëgëni. te sëñ mun Muntaxa du nangu ku dem bàyyi ko ci taalibe. te sëñ Muntaxa nag moom foofu la aw xelam jëm. kenn du dem bàyyi ko ci ak taalibe. xalaatu ko sax da koo xalaatut sax di ko nangu. moo tax mu bàyyi la xel. moo tax mu bàyyi la xel. moo tax itam mu doxee nii. moo tax it mu doxee nii nag. ndax jamono jii. ndax jamono jii. du jamonoy mbooloo. du jamonoy mbooloo. waaye rawaate na. waaye rawaate na. moom ci wàllu boppam. moom ci wàllu boppam. fi mu àgg. fi mu àgg. ak ni ko yàlla def. ak ni ko yàlla def. ak ak fi ñuy séenu ci moom. ak fi ñuy séenu ci moom. moo waral nag. moo waral nag. bu agsiwul ak jëmmam. bu agsiwul ak jëmmam. te waxoon naa ne jëmmam a ngi fi. te waxoon naa ne jëmmam a ngi fi. ñii kuñ ko yón kuñ leen yónni fi barab. ñii kat fu leen sëñ Muntaxa yónni fi barab. bu dee luy doy. bu dee luy doy. doy na doy na. ndax fi sëñ bi. ndax andi fi sëñ bi. mën naa am sax bu ko xëram mayoon ba mu ñëw. mën naa am sax bu ko ak xëram mayoon ba mu ñëw beneen mbir lay andiwaat. beneen mbir lay indiwaat kon yow xam naa ne nangu nga loolu. kon yow sëñ seexanta xam naa ne nangu nga loolu. xam naa ne nangul nga ko ko. xam naa ne it nangul nga ko ko. moom xam na ne nangul nga moom it xam na ne nangul nga ko ko. kon nag. kon nag. mi ngi lay sant. mi ngi lay sant. mi ngi lay gërëm. mi ngi lay gërëm. mi ngi lay ñaanal. mi ngi lay ñaanal. Eh, eh, fi maam yi ne woon ak bàyyi. fi maam yi nekkoon ak bàyyi. ba dara laalu ci suuf. ba dara laalu ci suuf. yàlla yóbbu la ca martaba boobu. yàlla yóbbu la ca martaba boobu amin yaag ñi nangoo def na yow. yaag ñi nangoo def na yow. ndax eh, wëccoo yëf yi mu réer. ndax wëccoo yëf yi mu réer. ku ne xam na ne bëgg nga sa waajur. ku ne xam na ne bëgg nga sa waajur wa. bëgg sa waajur moo waral nga nga nga nga doxee nii. bëgg sa waajur wa daal moo tax nga doxee nii. moo tax kër sëñ Touba gële. moo tax kër sañ Touba gële. bëgg sa waajur a tax. bëgg sa waajur moo tax. far sa fa fa Daaru Salaam war far nekk nekk kër sëñ Touba far. fa néegub Daaru Salaam ba far nekk nekk sëñ Touba. ak la nga ca jëf. ak la nga ca jëf. ak na mu ñoree sëñ bi. ak na mu ñoree sëriñ bi. ak barab ba na mu ñoree sëñ bi. ak na barab ba ñoree sëriñ bi. loolu doyoon na sëkk. loolu doyoon na sëkk. boo dellu suwaatee. boo dellu si suwaatee. defar barab bii. defar barab bii. ah man de defar naa fa sama waajur ne woon. man dee defar naa fa sama waajur ne woon. waaye demewul nii. waaye demewul nii. lii nag ku ko mën a def. lii nag ku ko mën a def. ci sëñ bi. ci sëñ bi. te sëñ bi jisul rafetaayu kër gi. te sëriñ bi jisul rafetaayu kër gi. xoolut kër gu ñuy defar itam. xoolut it kër gu ñuy defar. ndax kër gu mën a mat milliard nii. ndax kër gu mën a mat milliard nii. wala cent millions. wala cent millions. sëñ bi bu soxla woon këru cent milliards. bu sëriñ bi soxla woon këru cent milliards. wala ñu di ko def poto yi or. wala ñuy def poto yo or. wallaahi dana am. wallaahi day am. ndax kon dara du ci des. ndax kon dara du ci des. waaye nag pas-pas bi nga ko defee. waaye pas-pas bi nga ko defee. loola la yëg. loola la yëg. ba moomatul boppam. ba moomatu ci boppam. mu ne mu ne bëgg na maa ñëw. mu ne bëgg na maa ñëw. waaye day am gànt nag. waaye nag sëñ bi day am gànt. ngantu loolu nag ngantu loolu nag alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin bi nga ko ko nangulee bi nga ko ko nangulee ndax boo xamoon ne dogu nga dëgg dëgg dogu nga xam ndax kat boo ci dogu woon it dëgg dëgg dogu mën naa ñëw sëñ bi mën naa ñëw waaye du gën ci noonu waaye du gën ci noonu kon li gën ci noonu kon li gën ci noonu mooy ñi ñii mu yabal mooy ñii mu yabal rek eh, loolu daal la bëggoon nga nangul ko loolu daal la sëñ bëggoon nga nangul ko ko sëriñ Cheikh ngeen fasalaat ko yéen ñëpp ci woote bi te murid yëpp maase fasalaat ko ci woote bi yàlla gën koo dëral. yàlla gën koo dëral. te sàmm te sàmm ko nag. bisu tey bii nag. bisu tey bii nag. mooy ñetti atam. mooy ñetti atam. le huit la nekkoon xalif général des Mourides. le huit la nekkoon xalif général des Mourides. tey la le huit. tey la le huit. le huit janvier. le huit janvier. tey la ñetti at mat. tey jii rek ci bisub tey jii rek de ajuma ji la ñetti at yi mat. doguwaat leen nag doguwaat leen nag. mu jàll rek. mu jàll rek gaa yi neen da koy ëpp de. xaw ma xalaatoon ngeen looloom de. xaw ma xalaatoon ngeen ne bisub tey jii mooy ci la Seex Mudu Muntaxa nekkoon xalifa Sall de Mouride. waaye tey jii la toogoon. ma ne sëñ bi nee na kon bis bii lay màggal. tey la doonoon xalif central. bisu tey ji daal la doonoon xalif central Mouride. le 8 janvier. le 8 janvier. kon nag foofu laay yemale. kon daal foofu laay yemale. ngeen ñaanal ko. ñaanal na leen. ñaanal na leen. ku jàpp ne mi ngi fi. ku jàpp ne mi ngi fi. mi ngi fi mi ngi fi. ku doon xool xumbaay ak rëg-rëg. ku baa nga fa ne. sëñ baa nga fa ne. waaye gaa yaa ngi nii. waaye gaa yaa ngi nii. lu ngeen doon sàkku ci moom. lu ngeen doon sàkku ci moom. ginnaaw sëñ baa ngi nii. sëñ bi daal a ngi nii. sëñ bi ñaanalal mbooloo mi sëñ bi ñaanalal mbooloo mi. ñaanalaat sëñ Muntaxa. ñaanalaat sëñ Muntaxa. E, li mu bëgg a liggéey ci yoon wi. li mu bëgg a liggéey ci yoon wi. mu liggéey ko mu liggéey ko. na mu ko bëggee. na mu ko bëggee. ndax kat. ndax kat. am na ñoo xam ne neexuñoo yilif. am na ci nit ñi ñoo xam ne neexuñoo yilif. kenn mënu ko sax far. kenn mënu ko sax. ku mel ne moom rek a leen mën a yilif. ku mel ne sëñ Muntaxa rek a leen mën a yilif. nu ne la ko nit di jàppee nag. nu ne la ko nit di waaye sëñ Touba mu mat sëkk la. waaye sëñ Touba mu mat sëkk la. ci biir ak ci biti. ci biir ak ci biti. lu mag ñi doon def. lu mag ñi doon def. waxoon na ko ca tabaski ga. waxoon na ko sax ca tabaski ga. weesu na fenn fi. weesu na fenn fi. nu nit doon jaamoo yàlla. lu nit doon jaamoo yàlla. man de am na maag moom eh, ñeen fukki at ak juróom-benn. man de sunu ànd maag moom mat na ñeen fukki at ak juróom-benn. loolu nag ab ànd la. loolu nag moom mat na ab ànd. waaye mus ba ma àndeek ak moom ak léegi. waaye ba ma àndeek ak moom ak léegi. te yàlla laay seereel li may wax. te lii may wax it yàlla laa ko seereel. bu dul weexaayu bijaaw bi. bu dul weexaayu bijaawam bii. jaamu yàlla gii mu nekk. jaamu yàlla gii mu nekk. ak ni mu ko joxe yilla ak ni mu ko joxe yitteeg yilla moog ba mu ba kàttan gi ak. Eh, nekk moog ba ba mu amee kàttan di waaxu rek ñoo yemoon ci moom. dara mosu cee dara mosu cee dañ. te li ma ci wax mooy gën a wér lu ci nit di waxati. te nag man lu ma ci wax lu ne moo gën a wér lu ci keneen di wax. ndax du ma wax lu ma gëmul. ndax du ma wax lu ma gëmut. te du ma raam ci kenn. te du ma raam ci kenn. koo xam ne nii. koo xam ne nii. du nekk yàllaa tax ma bëgg ko. du ne yàllaa tax ma bëgg ko. ak sama jëmm ji mu bind. ak sama jëmm ji mu bind. ba bëggaale ci loolu. ba bëggaale ci loolu. kon ku mel noonu nag. kon ku mel noonu nag. bu dikkee ci murid yi. bu dikkee ci murid yi. na murid xam ne. na murid yi xam ne. dara dara tas tasutoon. dara musa tas tasutoon. dara yàqutoon. yàquwutoon. waaye kii fi ne. waaye kii fi ne. sëñ Touba ko tax a jóg. sëñ Touba ko tax a jóg. ci lay ci lay liggéey. ci lay liggéey. ku muy wax lu la neex. ku muy wax lu la neex. ba nga defee ne yow a. ba nga defee ne yow a. du yow du yow de. moom borom liggéey bi lay xool nu mu sàmmee liggéey bi. moom daal borom liggéey bi rek lay xool nu mu ko sàmmalee liggéey bi. ba dara ba dara du des ci liggéey bi. ba dara rek du des ci liggéey bi. yërëm naa ko sëñ Muntaxa di wax ne defal lii ngay dengi dengi. man daal yërëm nañu xool loolu ci kanam. nañ xool loolu ci kanam rek. koo xam ne dugg na ci loolu te tuubu ko. koo xam ne dugg na ci loolu te tuubu ko. dana xam ne daje naag lu mu dul dana dana dana daje naqar woo xam ne nii du xam fu mu koy faje ca kanam daal aw naqara nga koy xaar woo xam ne du xam fu mu koy faje ndax dara safu ko ci mbir mi ndax dara safu ko ci mbir mi lu dul yàlla lu dul yàlla yonent bi yonent bi sëñ Touba mi liggéeyal yonent bi sëñ Touba mi liggéeyal yonent bi ba mu fay ko pay goo xam ne ba mu fay ko pay goo xam ne kenn mës ta gis pay gi kenn mës ta gis nag pay gu ni toll te fas yéene dara fagg ci te fas yéene dara fagg ci dara suuf suuf dara. dara du ca xajam dara du ca fëgg. lool loolu la fas yéene. loolu la fas yéene. kon nag ku mel noonu. kon nag ku mel noonu. nañ ko gën a ñaanalaat. nañ a ñaanalaat. sëriñ bi boo delloo itam. sëriñ bi boo delloo itam. nga wan ko ne ko. nga wan ko ne ko. ah nun de ay taalibe lañ. ñun daal ay taalibe lañ. sëñ Cheikh mi ngeen fekk. sëñ seex mi ngeen fi fekk. dàll wi mu sol. dàll wi mu sol. moom la mag ña soloon. moom la mag ña soloon. moo waral ñun ñii. moo waral ñun ñii. nu ànd ak moom. nu ànd ak moom. ci liggéey bi. ci liggéey bi. naka jekk ci sëñ Touba mu fi ne. sëriñ naka jekk nag sëriñ Touba mu fi ne. Eh, ànd nañ ci liggéey ba. ànd nañ ca liggéey ba. ba ngërëm agsi ca liggéey ba. ba ngërëm bàyyi ko ca liggéey ba ñëw ci noonu. ba ci Cheikh Saliou mi ngay wax ni ba ci sëriñ Saliou mii ñuy tudd léegi. keroog bi ñu taxawee ngir war koo dugal ca barab ba. keroog bi ñu taxawee war koo yóbbu ca barab ba. moom mii moog sëñ Ama ànd. moom mii moog sëñ Amidou ñoo ànd. fekk ma kër. fekk ko këram. ñu dem ca barab jëli ko ci guddi gi 3 heures de matin yóbbu ko ca barab ba. ñu ànd dem foofa. ñu ànd dem foofa. ak la ca xew ak la ca xew. kon war na maa mën a tontu fii. kon war na maa mën a tontu fii. ndax fii la. ndax fii la. fii mooy barab bi. fii daal mooy barab bi. kon nag kon nag na na na na la leer ne. kon daal na la leer ne. sëñ Seex ak i bokkam. sëriñ Seex ak i bokkam. ñi ngi fas yéene nekk taalibe. ñi ngi fas yéene nekk ay taalibe. ne ci wetam. ne ci wetam. lu mu digle la ñuy def. lu mu digle képp la ñuy def. lu mu tere la ñuy bàyyi. lu mu tere duñ ca séen. moo mënu sunu bopp. moo mënu sunu bopp. na ko leer na it. na ko leer na it. tey jii tey jii. bu fekkoon ne dafa yebal. Eh, ku ñu jàpp ne sax warees ko mën a yónni. dafa yabaloon ndaw loo xam ne sax bu ñëwee ñoo xam ne kii war nañ ko mën a yónni. bu ñëwee nu nu nu nekk taalibe ci wetam. bu ñëwee dana nekk ay taalibe ci wetam. deme nga wax ko loolu. boo demee daal wax ko loolu. loolu loolu loolu ngeen fi fekk. loolu daal ngeen fi fekk. man kat eh, sëñ Saliou yónni na góor yi ci man. man de sëñ Saliou yónni na góor yi ci man. Eh, ci ci ci mujj ga. ca mujj ga. ba mu agsee góor a boo ko laajee damaa wàcc toog suuf. ba góor a agsee man damaa wàcc toog ci suuf. mu mu jox ma décoration sëñ Touba boobu ma joxoon. mu jox ko décoration boobee ko sëñ Mountakha joxoon ca wàccaayu julli wa. sëñ Saliou joxoon ma ko te joxoon joxoon ko sëñ Moustapha mi yónni ko góor a jëy. te bis ba mu ma ko joxee ba mu dellu see la dem. te bis ba mu ko ko joxee ba mu dellu see la dem. jàppe góor a jëy ak sëñ Saliou rek laa yemale booba daal góor a jëy ñëw moom sëñ Saliou dong laa ko doon xoolee. ba fii mu nekk loolu lay jàpp. ba fii mu nekk loolu lay jàpp. kon yéen itam. kon yéen itam. daye boobu yor ngeen bu to bu ëpp loolu. doye boobu daal yor ngeen bu ko ëpp. ndax bu leen góor a gisoon raam. ndax bu leen góor a gisoon raam. toog gi ñu toog ci kaw sax. toog gi ñu toog ci kaw sax. jàpp leen ne. jàpp leen ne. xëy nag mag la. xëy nag mag la. waaye du xol bi ma bañ. waaye du xol bee bañ. ngeen demee ngeen siyaareel ñu sëriñ boo demee daal ngeen siyaareel ñu sëriñ bi te gërëmal nu ko te gërëmal nu ko te ne ko te ne ko nongu noonu ne ko nangul nañ ko de ne ko nangul nañ ko de ñun nangu nañu ñun waal nu nga nanguñu lu mën a xew nangu nañu. moom daal lu mën a xew ñun nangu nañ. lu mu wax moom la ñuy def. lu mu wax la ñuy def. noo ngi ci wetam. noo ci wetam. yal na ko yàlla sàmm. yal na ko yàlla sàmm. te aar ko. te aar ko. musal ko musal ko. ba fi mu bëgg àgg rek. ba fi mu bëgg àgg rek. te fi mu bëgg àgg mooy fi mu fi mu bëgg àggale. te fi mu bëgg àgg mooy fi mu ñu bëgg àggale. yal na yàlla def nu nangu ñun ñëpp. yal na yàlla def nu nangu ñun ñëpp. yàlla da yàlla def ñu nangu ñun ñëpp. asalaamaaleykum sëñ bi nee na ne wax na sëñ taxaa yàlla na fi yàgg te wér. nee nangu nañ nangu nañ na ñëpp wax na nangu nañ. ne na ñëpp wax na nangu nañ. nee na ni ko sëñ Moustapha waxee. nee na lu mu wax noonu la. lu mu def noonu la. la mu waxoon barki démb ci kër ga. ndax dafa waxoon ne sëñ Muntaxa dañ ko war ñaanal. sëñ Muntaxa sëñ Tuubaa sëñ Muntaxa mii nañ ko ñaanal mu yàgg fi lool ndax bari dafa bari ay sémb yoo xam ne maamam ju tedd ja moo ko sémboon waajuram yi fi nekkoon am sémb yu ñu sémb magam yi fi nekkoon am sémb yu ñu sémb te sémb yooyu sëñ Babacar moom sëñ Ibrahima Mbacke Ndar mu ne te sémb yooyu sëñ Seex wax na sémb yooyu lu mel ni sémbu université bii ñu mu wax na ñun ñii di taalibey Sëriñ Tuubaa ci sémb yi lañ bokk nii sëriñ bi defaree université bi noonu la ñuy defaree ñun taalibe yi te nee na man mii maa ci yées te ñëpp la bëgg a defar kon nag li sëñ mu wax nag ko ñaanal mu yàgg fi